Fat Bintou Pouye moo ci ci jamono moo jaay juróom jënd ko taalibe lépp màggal lu maam màggal Kazu la moo tax mu jël lépp delloo ko màggal Kazu Rajab soxna Fat Bintou Pouye borom waay moo tax taalibe yee ma soññuwaat li ma demal ci moom nga gërëmaat waaw waaw lu fi ñepp ma se a waat waaw waaw moo di yaa di borom waañ wi soxna Fat Bintou Pouye bee la tànn ci asal ba doon fi njiit yi fiy jëfal te lu fi tàkk tey yaa ko jëfal na gaay ci nit nga boole mboolem seen ngërëm mu yiwu rey nga foog ko lépp sëriñ bi jox la sa cër loo tax lee tax nga jiite jamono bi gaa ya demee sët ya des noonu ya di ree naan léeg mu tas yaa jug taxaw jëf ku ne gis lee nga jiita jamono sono faat bi dupuy jaaraama borom waañ borom waañ wi ndekete yoo muñ am na solo ndekete yoo nag li ku liggéey fayu ndekete yoo muñ am na solo ndekete yoo am na solo am nga liggéey liggéey ci biir kër sëriñ bi tabaarkalla maasàllaa du niil waa jàngoog soxna Fatou Bintou Pouy sama xol sedd borom waañu dinaa ko ci ma ko lépp a ngi fi Modou Mbaye xoolal fi ñuy def am na ceebu yàpp am na mbaxalu Saalum am na mbaxalu buj am na laaxu bisaab am na laaxu jaxaan am na laaxu jina job am na misi am na ganaar am na poulet pané dibi yaaf lépp am na nee naa Modou Mbaye fi ñuy def musuwaar yi dafa mujj jar yóbbul ko chef. waaw fi ñuy def musuwaar yi. waaw ba yóbbul ko chef. déet man plateau yii. ah plateau fii nga koy gisee. fii rek nga koy gisee soxna Fatou Bintou Pouye borom waañ. waaw waaw. yaa fi respecté taalibe yaa respecté dongo lu Cheikh Abdou Karim ne. yaa ci ñëpp. waaw waaw yow jàppoo ay surga ay taay ay taw la nga bëgg. dëgg la de njabootu Cheikh Abdou Karim gépp nga gi kenn bu mbaagal kasila jam jotee xel yëpp rek ndindi lay dem waaye bu xel yi ñëwee ndindi xel yi dem Cheikh Abdou Karim waaye bu heure añ jotee heure bii bu jotee xel yëpp dem ci soxna Fatou Bintou soxna Fatou Bintou Pouye jaaraam bii jàmbaar gi jàmbaar gi yàlla yàlla guddal soxna Fatou waaye nag gis nga Modou Mbaye waaye Ismaïla yaram daw na ah xam nga lu dawal sama yaram dawal sa yaram xam nga moom daa fexe tabarkàlla waaw ba taaliba yi sëñ Karimam waaw mu tekki loxo waaw tabaarakallaa lu sëriñ am nga téye ko njaboot di kenn narul lu sëriñ sëriñ Abdou Karimam waaw fa tabaarakallaa solo fat bintu kuy téye yàlla yàlla guddal yàlla yàlla guddal sa fan. yaa skor yaa mën lu baax yaa nit ku baax. yaa fonk sa nawle lu baax. yaa bëgg sëriñ yaa mën a sagal sëriñ yaa fonk sëriñ yaa mën a sagal yaa bëgg taalibe yi yaa fonk dongo yi yaa mën ci kas la def yaa mën ci màggal yaa mën ci lépp. Soxna Fatou Binetou mayel boo di ñëw nga boo di ñëw mayel boo di ñëw nga boo di ñëw mayow mayow mayow boo di kañ lay jeex nga boo di ñëw mayow boo di kañ lay jeex te kat boo di ñu boo di ko def seen waaw waaw boo di laa ilaaha illallaah soxna Fatou Bintou Pouye jaaraama Bintou Pouye jaaraama waaw waaw soxna Fatou Bintou Pouye jaaraama taw la. sama xol bi set na. ñaari nag la indi solo. ñaari nag la ah. <laughs> indi. ñaari bakkuran la koy indi. moo jaay moo jaay ñaari nag la fi indi. ñaari nag la fi indi. nga nga takk daw rek ci sëriñ bi rek jàng rek màggal màggal gi rek kan la dindi la ci sëriñ kër yi waaw waaw waaye boo yegsee foo jëm ci sama xol bi sama xol bi du bëgg waaye dama ni màggal gi ndindi a kër si Abdou Karim waaye borom waañ wi sama bi du bëgg fii ci ndindi borom waañ wi borom waañ na nu waaye sama xol bi seet na waaye soxna Fatou bi du nii la ko tàmm di defee. nii la koy defee at mu ne. at nii la koy defee. waaw nii la gan ñi dina lekk dina naan. waaw kenn du xiif kenn du mar. waaw nee naa lu sëriñ bi mos a digle si kuul te yaa ci mën gaay ci jamono. waaw waaw soxna Fat Bintou Pouye borom wàññi. soxna Fat Bintou Pouye jaaraama. soxna Fat Bintou Pouye jaaraama ndekete yoo ku liggéey fayu. ndekete yoo mu ñàlle sara. soxna Fat Bintou Pouye borom wàññi. waajal ngoog laa yaay la laa. ci waajal ngoog. waaw Babacar Gueye nit ñi la waaye kër Serigne Karim la waaye sama mag bi dugub waa law la ca bu mbaam ñaaxee kay na a wax waaye lay lépp pour a am solo mooy lépp ko taalibe ak dongo yi lépp delloo ko taalibe ak dongo yi

Fadam sax day jël Fadam jëlal lii mais grand bi jëlal lii mais këccëg jëlal lii waaye naaw la cet waaye tey suñu xol yi sedd na waaye macha allah mooy yitteem mooy yitteem màggal sëñ Fallou bii rek la yitteem moom mooy yitteem moom rek la am moom booba xamoon na màggal sëñ Fallou gi rek la am tabaarkalla macha allah bu kasaan jot jot tabaarkalla amatul jàmm waaw waaw soxna Fatou Binetou Pouye borom waañ fii soxna Fatou Binetou jaaraam moom la koy def ak mu ne waay waay Fatou Binetou Pouye baax borom waañ wi sama yaay booy ngi seet. waaw muy kër xoolal kër nee naa ko ci laaw la jot sama xol seet na. soxna la ko. soxna ma tax sama xol seet na. ah daa war a seet de. nee naa ko ci laaw la jot. dëgg la man lu baax nag daje góor nag. barkalla maa salla yaa man lu baax. waaye ba kilo sëriñ li ma la def rek barkalla maa salla delloo ko. doore saa yaa man lu baax. Modou Ndiaye. ñaari fan yu naan la fi. boole ko ku fi naan la fi fekk. yow yow bu yàgg. dama ne këccëg. fii ci suñu fan la. bàyyi ko suñu fan la. li buy ko. waaw ñu ne ko jamono sax. sëñ bi dafa bëri ko ci suñu fan. lan nga liggéey. waaw mooy yoon bi dëgg la. waaw. mais soo la bëgg waaye nga wane. non non tey laa ñëw